wax ji naan war cee def ay moquette yu taaru yi les moquette yi nga xamante ne démb lañ jógee diwaanub turki ñëw fii ci Sénégal mu toll ci neuf mille cinq cent mètres carrés loolu war a daj yile juma bu ñu sukkandikoo al amin Mbàkke mi nga xamante ne moom moo réceptionné yile les moquette mook jëwrin Mbàkke yu fay moom mi ngi tudd Jihad euh, lii mooy seen liggéey usine bi gën a mag ci wàllu tàpp yi ci àdduna ñoom ñoo ko moom euh, ñooy defar tapis Madina depuis 1976 ba léegi nii ci papa la ci maam la woon ba ci sët euh, léegi rek daf ne woon rek day ñëw xool parce que ñoom boobu ba léegi tey la c'est la première fois ñu gis nit jóge ci beneen réew ñëw di commandé ay tapis ci réseau yu bëree bëri waaw Jihad you wanna say just quelque chose euh, ñaata mètre carré ñi ngi euh, à peu près ñi ngi ci 9500 mètres carrés Euh, montant financier moom euh, c' est ko euh, xam naa ne est dinañ ko wax daal xamuma exact nu mu toll. <laughs> mu doon bu njëkk ci taarix ay africain yoo xamante ne dañuy tabax ab juma dem ba duwaanub turki ngir jënd fa ay moket lii yéem turki yi nga xamante ni ñoom seen liggéey yëpp ci wàllum defar moket la tënku ba tax ñoom it bàyyeeku foofu ñëw fii ci Sénégal kii di sëñ Al Amine Mbacké di ñu nettali dimension yi ak moquette yi nu mu war a tëddee. biig si guddi la egg si nee na moom moo koy laal boppam parce que c'est c'est c'est quelque chose de spécial euh, mi ngi nekk des tapis de 33 mètres euh, de longueur sur 1 mètre 30 37 mi ngi nekk aussi 3 kilos 500 par mètre carré. benn benn rouleau bu nekk mi ngi nekk 143 kilos point 77 loolu moom xam naa ko ci waaw. mi nga xamante ne ay maamam ñoo moom entreprise bi le di defar yile moquette moom di am mbégte bu rëy a rëy di ñëw fii ci Sénégal fas yéene lal yile moquette. ana su'idtu jiddan bi taaruf ala axi Arami man damay am mbégte di gërëm bu baax ki nga xamante ne moom moo di jëwriñ El Hadj Mbakiou fay ak kii di Serigne Alamine Mbacke ki nga xamante ne ñoom ñoo commandé si woon moquette yi ba tax na ñoom amuñu seen fay man nag looloo tax ma jël sama propre initiative ne damay ñëw fii ci Sénégal ngir lalal sama bopp bile moquette waaye saytuwaale taaruwaayu jumaa ji ba tax na nag kontaan nañu loolu bile juma ak taaruwaayam. salaamaaleykum wa rahmatullah. Masalikul Jinaan ci taaruwaayam ndakaaru ba tax ñu benn détail lu soxal bile inauguration ki démb ci guddi lañu indi conteneur yi Masalikul Jinaan ci taaruwaayam ba tax ñoo bàyyi benn détail ngir jumaa ji gën a firndeel leadership am ci douanub Afrique ba tax na dem ba douanub Turquie ci entreprise bi nga xamante ne moom mooy jox arabi Saoudi moket yu ñuy lal douanub Makka ngir ñu mën ko def bile juma